2020 di at mii di jeex am na opération boo xam ne amoon na fi solo si ndaje mi tey nag mooy ñu càmbar ko seet naka la demee woon la ca baax ñu xam ko la nga xam ne manqué woon na ci ñu mën ko waxtaanee seet naka lañ koy mën a gën a defaree. ñu ngi nekk ci compé contexte boo xam ne dafa am mbas mu fi nekk te gis ngeen yëngu-yëngu yi nga xam ne. commencé waat na di ko am ñu waree wéy nag contexte boobu jéem ko def sunu biir ba lii nga xam ne war nañ ko liggéey ñu di ko ci sóoraale di ñaan kenn ku nekk rek kent lay kattam mu jukkil ñi ci li nga xam ne am na ko ci expérience parce que yaakaar nañ leen ci ba nga xam ne buñ koo jóoree ci kaw taabal ji bu ñu ko dajalee lañ ci jindi lañ ciy jukki danañu servir de feuille de route ensemble du ministère rek mais ensemble kenn ku ci nek ci ciet bi nga xam yalla mo la ko dénk ñu man ko mettre ensemble doxale ko ci tabaski 2021 bi nga xam mom lañ deugmal te président de la république vraiment di ñu déglu fi ñu nek ni bu ñu paré tay inshallah allah compte rendu danañ ko ko defal ba nga xam ne dana ko am lo xam ñun acteurs yi ñi ko lii lañ fas yéene doxal ba boo ko defee kenn ku ci nekk yàlla tënk la ci loolu ba mu ñëw mu liggéey ba ba Sénégal kontaan ci président de la république li ñu ci séentu ñun kenn ku nekk ñu matale ko.